ñoo tàbbi ak lu ñu witti duñ benn góor kàttan lay doon baax lool ci góor gu tële ba góor gu gaaw a daanu rax si dool lii day dëgëral awra am ka lu yomb la contacté ñu gaaw si numéro téléphone bii di 77 734 26 67 yàlla yaakaar ci moom deux cent mille cinq cent mille un million moo ñu gënal fat suñu moroomu jaam boo xamante ni suñu borom dafa wàcc ci moom tawatu wéri di xel ñu abandonné ko ba noppi sànni ko ca mbedd ma mu jaaxle lool heure ndékki bu jotee du ndékki bu heure añ jotee du kenn ku nekk ci ñun boo ko xoolee ci bopp bu heure ndékki jotee te ndékki woo foo mënti dugg da nga fa dugg lijjanti loo ndékkee bu heure añ jotee noonu bu heure reer jotee noonu moom mi nga xamante ni suñu borom dafa wàcc ci moom tawatu wéri di xel ana tey bu heure ndékki jotee fan lay ndékkee bu heure añ jotee fan lay añee te ñi nga xam rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki ami internet bu association ànd taxawu ñu wéré di TV Baye Pape Niang di dellu siwaat di leen nuyu ci mbegte ak xol bu sedd ci kenn ku nekk ci yeen ñi nga xamante ni yéen a ñuy bàyyi xel saa su nekk ginnaaw bi nga xamante ni dañoo fanaane dawal ba bët set jógee Dakar minuit la ñu quitté Dakar départ dem Louga ci benn malade mental boo xam ne mu ngi tëkku yaayam nee na da koy rey ba damm fa benn loxo xale di ngeen ko gis ci vidéo bi ñun duñ seetaan loolu ci la ñu taal oto bi ci guddi gi dem Louga egg fa 4 heures du matin def fa lañ fay def juge fa jugewaat Louga cinq heures du matin dawal jaar Daaru Musi jaar tuuba jaar Njaareem jaar Gosaas. jaar fi nga xamanteni mom modi gin gi new jaar kaolak rombu passi ba egg sokon fi ñu taxaw nak mi ngi tuddu njufen Mala nek fi ci diwanu sokon mu am suñu ben mbokum jaamu yalla bo xamanteni dafa amé febaru xel ñu jeng ko lu tolloog ay at yu bari dañu dugg ci bir jokkok wa kër gi ngir ñu mën ñu gën a jox ay information ci jéng bi nu mu demee lan la doon def ba tax ñu jéng ko ak ñun lan la ñu mën a def pour mën leen cee dimbali. Samba nga topp ma ci biir ñu daal di ànd xool loolu sama gars yi yegg si leen maa ngi ànd ci terrain bi ak ñi nga xamante ni du ñu sonn du ñu bàyyi du ñu tay jamono bu nekk ñu ngi ci terrain bi bàyyi paate ki nga xamante ni mooy bàyyi. Sëriñ fallu soxna Adama seen Baye Sëwru ak ki nga xamante ni moom mooy Baye Wuri tey Baye Paate manqué nañu lool waaw di leen jaajëfalaat bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di siar bu baax ki ñuy laajte nu mu tudd kan na nga def bismillah soxla na la exil ni noo tudd Jeynaba Njaay fi ñu nek moy fan mala ñu fen mala da ngeen am mbokk bu am febaru xel waaw Lo bok ak mom sama jëkkër mo bok ak man day ak bay feebar bi depuis kagn lako dal. ah yàgg na de man bi ma sey sey laa ko fekk de. bi sey ak legi ñata at la. ren moy ñetti at. ren moy ñetti at. mom ah. moom bi nan la koy dundé ak yeen ci biir kër gi. ah ñun dañ koy comprendre way feebar bi xawna doy war mais comprendre mo war xana bu ngeen ko comprendre on du ngeen ko jeng mais comme da ngeen ko jeng kay lan la doon def ba tax ngeen Mom, ko. mom day jël li waruwaay bugg a dóor nit yi wa loolu lay bëgg def. wa fim toll da ngeen ko jeng wa ay ci gaay yi nañu and ak man ñu egg ci biir xol ko fim mu toll nii day dóore fim toll nii dangar gi wacc na ndax da ngeen ko jéng bam son ndaysan dafa melni nak bima koy seen sank ci buntu kër gi dara taqul ci kawam déedéet jaru ko alaykum sang bi na nga def mbaa yaa ngi am yow noo tudd. ah kii moom néegam bi doy na waar laa ilaha illallah néeg bi doy na waar boo fi duggee doo noy lépp fi la koy defee ñu jéng ko cabinet yaa ngi fi nefere yaa ngi fi boo taxawee ci bunt bi doo noy waaye lu mu metti metti danañ ko maîtriser dugg ci biir lu néeg bi ñàkk-ñàkk hygiène danañ ko maîtriser dugg ci biir jambar ngeen lol ndax tabaxal ngeen ko nek waye dafa des da ngeen ko waron di topato ndax amul kenn ko xamanteni mi ngi ci biir kër gi ku nango dekk ak aw nefere wo xamanteni ne nako ci jëmum kon bu ñëwee fekk ci nek bi ay siyo yo xamanteni dem na ci cabinet fekk ko mu tëdd ci lal bo xamanteni mom moom nday sànn borom jamni allahu akbar allahu akbar na nga def man ma ngi tudd Pape Niang yow noo tudd. Maman Cissé Pape. ah je pap mohammed je pap si se pap jugal toog. may deug la ah. wa jugal toog man sa xarit la dama ah. ñew set ci la. jugal wili wili Bang. wow, yow noo tudd. lan mo lay metti dara dara. depuis kañ nga nek ci nek bi. non fani fani la fi nek def na ñaata waaw ah, yàggul sax yàggul noonu. yàgg na kay ndax def na ay at. Hmm. mais fi nga dëkk nii moom doy na waar. ñoo benn problème. dara mettiwu la. noonu non. lan nga bëgg tey ñu defal la ko. Hmm. lan nga bëgg ñu defal la ko. naa may ma garab ba bañ feebar quoi. ñu may la garab nga bañ a feebar. Hmm. ndeysaan mu nekk lu metti ah. kañ nga gëj a sangu. yàgg yàgg na tuuti ah. ay yàgg na tuuti. ay ñaata at la def. non yàggul noonu bu baax noonu. am nga soxna. non non. lu tax amoo soxna. non non amoo soxna. bëgg nga ko. ah waaw su ma si jotee am xaalis. So, ci jotee am xaalis bëgg nga ko. waaw. soo soxna tey boo amee doom ba di nga ah su ma amee xaalis. soo amee xaalis. Hmm. yow di nga am xaalis ndax euh, quand la vie ya de l'espoir. Ah, mais lan moo tax ñu jéng la chaîne bi lu muy def ci yow. quoi entraînement tey chaîne bi day ku baax lu yéeme la ndax bëgg ngaa tàqali koog moom. non dama koy garder ni ko da nga koo bëgg a mhm. ñu daal di dellu ci biti jokkoog mbokk yi balaa ñuy jël benn balaa ñuy jël benn engagement ndax nag waxtaan day neex boroom kër. kan mooy euh, mbokkam bu ko jege lool yow la. acca bismillah ku baax ki noo tudd. lan nga bokk ak moom. ndey ak feebar bi kañ la ko dal. fii yàgg na moom tuuti de. ñaata at la def ci moom. Hmm, ça dépend mun naa ne na fukki at lan la doon def ak yéen ba tax ngeen jéng ko. kii dafay xeex day xeex day xeex ak arme xeex jaasi lu ne. daf fee mës a gaañ doomu aadama. waaw am na ko mës a gaañ kay. nan la ko gaañee. Eh, man man mii la attaqué woon nañ dandu tuuti nañ dandu ne la tuuti. waaw ah, da ko koo xaw a ragal. ku baax ki da koo xaw a waaw ndeysaan ndeysaan acca euh, kan la mës a gaañ ak euh, arme kii mus na gaañ kii ak keneen ak keneen kii kii taxaw nii sax mus na ko gaañ ak arme man de ma jëloon arm fii man dama jotoon a daw moo tax gaañul ma ban genre arme la doon faral di yor jaasi jaasi la doon faral di yor waaw ah, jaasi lay yor feebar bi laataa mu koy dal ci lan la doon dundee moom. moom def doon dem moom kenn toog ci àll ci tool yi ci tool yi moom kenn moo fay ne du nangu ànd ak kenn moom kenn rek moo fay ne. Mhm. loo wax boo ko ne dugal ci biir nit ñi du nangu mhm. moom kenn rek moo mooy demal boppam. Mhm. soo waxee moom yenn saa yi mu ne ma nit ñaa ngi ci biir ci biir garab bi ma rek la ñuy jëw. ma rek la ñuy wax ci lu bon. léegi bu kiyee ñaari fan ñett rek mu dem engagé kooku. ñaareel ñëpp ñu ngi ko def ñaareel lu bari souvent loolu leen di def. comme mu ne ma kii man lay jëw bés bu ne ci man la ne dañuy toog ci àll bi dama jëw léegi bu kii faral rek mu dem attaqué kooku ak ak arme ja moom ana papaam papaam papa gaañu na ana yaayam mu ngi ci biir dafa feebar dangeen fekkoon sax moom laa uti woon ay am nga ko feebar ay yooyu moom laa demaloon marché pour utal ko lu lu mu lekk maire ci boppam waaw léegi li li li ma bëgg xam mooy tey ndax moom mës ngeen koo yóbbu hôpital waaw yóbbu nañ ko hôpital ban hôpital ngeen ko doon faje kii dalal xel bu fële bu bu kii kii caaroy. dalal xel bu caaroy ban ban ban ban docteur moo ko doon suivre. Eh, kii kii kii yoon na foofu nu mu tudd fàtte tuuru xanaa. fàtte nga tuuru docteur bi ñaata temps ngeen ko suivre foofu ci hôpital bi. hôpital dem nañ fa ñaari daan xam nga ñoom seen mbir. ñaata yoon nga fa dem. def naa fa ñaari yoon yenn saa lolu moo tax bis bu yalla sak ñuy lancer message bu am solo nañu bayyi buñ maladi malade yi yobul len hôpital yaakar ni fièvre xel comme bob bu metti la wala siburu, wala tuberculose lo xamantene dang koy traiter ben euh, courte ben durée bu gatt pour mu wër fièvre biko dal traitement bi à vie la du lu ñuy di ko Dulu du lu ñuy di ko du da ngay dem hôpital ñu defal la ñaari traitement nga ni gisuma ci gisuma hôpital gisuñu feebaram ba tax nga jëlee ko fa. hôpital moom mooy solu meilleure solution pour l' stabilité des malades mentaux kañ ngeen ko tabaxal néeg bi. bii ren néeg bi dafa bii ren laa ko tabax. lu tax du ngeen toppatoo néeg bi. néeg bi soo fa demee daf lay engagé moo tax ñuy ragal man mi am na fan ñii seede nañ ko fii la ma engagé tuuti mu gaañ dama koy daw. mais yéen comme da ngeen koo jéng kay. Hmm? léegi su ñëwee ñii ñu ngi nii seede nañ ko ci jéng boobu la ma engagé man suma koy jax lek dama ma ko ne ma jël du nangu. legui lan ngeen di xaar ci association am taxaw ñu wéré di ñi nga xamanteni ni nañ dakaru ndjay ba ex seen kër. Ah, di ko yalla rek di sante yalla jënd ci yonent ñaan ci. lan ngeen bëgg ñu defal leen. Ah, bu ñun kañ dañuy ut ku ñu ba tay ba ut ku mu fajo rek maa ut ku mu fajo rek bu yalla yàlla mu fajo bi wor loolu la bëgg ci carton yalla bu ñu yalla dolé dimbalé ñun ñëpp. comme ni mu ko waxé inshallah allah bi du sori dinañ leen won dëkk biñ koy yobbu dañ koy yobbu ñun bala ñuy joggé fi dinañ ko dinañ dindi jeng bi dinañ ko wat ba mu set dinañ ko sang ba mu set solal ko ay yere yu set and ak mom ak kenn ci yent xam ngeen dekk bi ñuy wax daru salam Kër jaham Kër jaham xam ngeen ko. Kër jaham xam ngeen leran leran bi xam naa. ginnaaw leeraan la Kër Jaxam. Eh, eh, xam naa fofu la daray maulana Cheikh Idrissa Diouf nek malade mental yi ñu jaaxal fofu lañ leen di mu traité leen dimbali leen sauvé leen jàppale leen te yàlla rek tax ndax ànd ngeen ak ñun ngir ñu jëlee ko ci néeg bi ngir benn dure boo xamante ni moo xam weer la moo xam at la moo xam junniy weer la yàlla rek moo xam waaye bëgg nañ buy dellu siwaat fii ci kër gi mu dellu siwaat ak sagoom yal na yàlla jàppale ci ñun ñëpp parce que kenn ku ne fii sa yeneen loolu la kenn ku ne yàgg na ma wax ne defal ndax yéen di ngeen ñu mën a jox autorisation parentale ngir ñu jëlal leen ko yóbbul leen ko ca bërëb boobu du ñàkk it dañuy ànd ak kenn. waaw loolu la loolu lañ soxla ñun kay boobu ba tey dañuy ut fu fu ñu xam nga ku ku feebar moom fu nga fu nga fajoo rek ngay wut. jërëjëf papa lan nga ñu mën a wax ci malade bi. bi de ah xanaa daw yaram. parce que la engagé ni ci sandaw mhm. neexu la xool. Mhm. dama dama dama dem ba le fi ngay lancé ñaar fukki at lii dal la ci nekk ci lii nekk li euh, bàyyi kër gi di yendu ci àll kenn xamul àll bi daal moo gën a moo ma gënal kër gi ci la nekk nekk nekk ba commencé di naqadi deret ba mu fa nekkee bu njëkk neex na woon na deret waaye mujjantal gi laa indi deret naqadi deret ci lay nekk nii ah mu engagé fi lu ñaari nit ñu yóbbu ko nakam tuddati caaro yi mu def quelques jours. comme ni nga xamante ne noonu la ko kii nettalee rek daanaka daa mel ni yow ci kàddu yooyu ngay jaar waaye association bi na ci jàppale dañuy ñëw ci ki nga xamante ni mooy Adama seen Adama seen ñu ànd ak moom ci néeg bi mu def constat. comme ni mu ko baaxoo di ko defee su gisee ñu dund ci dund malade mental bi lu jaarul yoon moom Adama dina lancer message bu jaree soñu waa kër gi ci jëf ji dina leen soñu Adama ndax yaa ngi nooy. difficilement vraiment. difficilement. Mhm. lan la la def. métti na ma trop moo tax ba ma ñëwee mu dem toogi fële ndax euh, comme ni ngeen ko xamee. man sa yow xam nga ne man am naa nijaay boo xamante ne dafa wéri di xel. Mhm. donc ba ma ne tànk jàkkaarloog moom sama xel si moom la dem. moo tax ma dem toogi fële. te euh, ni ko sunu waa di ko defee sama muy sama waa kër maam léegoo léeg su génnee dem. donte du ko nangu nag. ma ne ko donte du ko nangu. Mhm. du ko nangu. ku laal ay bagage am et tout mais dañ koy def à son insu dañ koy def à son insu ñu jéem a defaraat man su ma fa deme forcé ko yóbbu ko mu watu ñu dagal ko ay weewam su ma tëwee ma woo ma woo leen ngeen jàppale ma pour mu sànku ñoom loolu ndem kii nag mënta jug dañ koo jénk waroon nañu léegoo léeg ñu ñëw yëkkati ko sang ko parce que kii nit la nañu chaque jour ma wax ko ñi nga xamante ne am mbokk ñu wéré di xel nañu bàyyiwaat xel si ñoom xam ne ay doomu aadama lañu lii jaaduwut mala sax bilaay wala ko def nii ci genre néeg yi nii. lu yàgg dara incha allah ñun dinañ ko dinañ ko fexe nu ñuy def ba voté ko criminaliser ko saggane bi nga xamante ni ñu ngi koy sàggane malade mental te ayu bis vidéo bi nga xamante ni yónnee nañ ma ko amoon na benn béy bu mu dëkkaloon loolu lum la def. waaw bo boobu moom xaw ma woon sax ndax fii la ñuy ñëw wax dëgg yàlla parce que man loolu ko gisee. nahar na ma naxare ba ci kanam yalla parce que dama ne kon ki mom ak malay mom ñom lañu la kon parce que suñu démé ba nit nga diko fanalo fi di fanalo mala ci bir néegu nit c'est parce que mala nga ko jappé or que wéré di xel ak euh, nek mala deux choses différentes ñi si ñun lañ bok hmm waaw bay pap sama constat moy gisati lu doyati war rek euh limay wax rek moy dëkk bi mëna naa leen comprendre d'une part. Amna na dekk yo xamne su doonon ñom la duñ leen ko pardonné ndax li tax euh vidéo yi ñu ngi koy lancer muy daw partout ñuy gis ñuy fekk malade mental ci circonstances yu mel di fatale jam ñi ni ñun ñi nga xamne ñoy nango fekk malade mental ci anam buñ mënti nekké di ci and ak ñom ak nu mënti mel jëng yi tay ñun ñi ñow ngir takalé ko ak mom bokku ñu ak mom dara bari na ci ay ka yo xamne lu ci melni ka Ousmane Tall keroog bañ koy delloowaat ay mbokkam waxoon naa leen ni leen dénk ngeen ko diir boo xam ni ñi ko fi jël si yóbbu ko hôpital def ci moom la war ci moom ba yàlla delloo si ko ak sagoom bokkuñu ak moom dara moo tax maa ngi woowaat sénégalais yi ci video yi nga xam ne ñu ngi koy faral di tourner di ko lancer ci YouTube bi ñu di ko seetaan dañ leen ci liñ ci jublu mooy jàngal leen nga xam ne suusa sa boo amatee malade mental lu kaa bi critique critique buñ ko yeew buñ ko jéng yàlla doomu aadama la gën a fonk ci lépp lu mu bind ak melokaan bu mu mënti amee ak nu mu mënti mel jàppe ko ni sa bopp lii ma gis fii wax dëgg yàlla lu ma tuuse la lool sax ndax naam waa kër gi ay jàmbaar lañ ndax fexe nañ ba tabaxal ko néeg moom malade mental yi taw yi di taw seen kaw moom bokku ci waaye teewul li malaat mental yi di dund ci naqar ak tiis moom mi ngi koy dund ndax dese nañ ko jox gëdd bi war ndax néeg bii kat jàpp naa ne boo fi tëjee mala bu fi defee ñaari fan ci liggéey nga tëj fi doomu aadama lu tolloog ay at. kon nag maa ngi woowaat doomu aadama yi ci ñu delloowaat jaam bi cir bi mu am ngir jëmmi yàlla te yàlla rek tax. damay wax ni lii su fekkonte ni yeneen dëkk yi la wallaahi daf ñuy jaral lu nekk ndax fekk da fexe nañ bay lancé vidéo yi muy daw fu nekk képp ku ko seetaanoon am nga mbokk mu ko seetaan mu la ko mën a won ñu mën leen cee jàngal ni ñuy téewaatee malade mental yi waaye nag Baye Pape ñaa ñii damaa gis ni comme li grand frère bi wax léegi maag moom ñoo bokk ndey ak baay ma jàpp ni kenn bëggul jël sa deret di ko yeew loolu su amee damaa jàpp ni ñoom xamaguñu woon solution wu association ànd taxawu ñi wéradi loolu mooy waral lu mel nii waaye bu fekkoonte ni xamoon nañ association ànd taxawu ñu wéradi parce que solution la solution des malades mentaux benn képp la mooy association ànd taxawu ñu wéradi te yàlla rek tax Baye Pape Niang jiite ko moo tax ñoo ngi woowaat doomu aadama yi ci ñi nga xam ne ñooy faral di dëkk ci barab yi mel nii bu ci amee ay mbokk yu nekk Dakar suñ gisatee cas yu mel nii nañ leen jox numéro téléphone Pape Niang muy 77 190 77 67 parce que am na cas yoo xam ne lu ñu sonn sonn lu ñu tayyi tayyi parce que fi dolli suñ leen waxoon fi ñu jógee parcours bi ñu def ak tournée bi ñu def li ma ci gën a marqué mooy cas bi ñu jëli Louga wax naa ne su fekkente ne dañoo jaay suñu nelaw topp guddi gi di ko dawal ba bët set ngir yàlla ak fekki jaam boo xam ne daf doon fitnaal waajuram di wax ne daf koy rey ñun baatu daf koy rey saa yuñ ko déggee mooy taqalikoo nañ ak suñ sago parce que niñ bëggee malade mantali nekk ci jàmm noonu lañ bëggee waajuru malade mental yi nekk ci jàmm moo tax maa ngi woowaat sénégalais yi wax naa ni képp kuy seetaan suñu vidéo na nga woos njaboot ñu ñëw toog di seetaan vidéo yi dina def ci ñoom yërmande dina tax ñu xamaat dëgg-dëgg gëddaay doomu aadama bi wàccawaat ko wàccuwaayam joxaat ko cëram waaye baay Pape wax dëgg yàlla lii ma gis fii euh, doy na waar yéeme na ba jéggi dayoo waaye nag li jar a sant yàlla mooy ginnaaw association ànd taxawu ñi wér yi nuyoo si nañ ci gii kër bépp kër goo xam ne ronkoñ tuuru na fa ngir malade te ànd taxaw ñu wéré di bu ñu buñ fiy dellusiwaat ay ree lañ fi indaale kon nag euh, ginnaaw yàlla dogal na mu nar a tàbbi ci say loxo euh, dañ ci amaat xel mu dal wax dëgg yàlla tey ñaan yàlla may la nga yeggale sa yéene jaar ak moom fi nga jaar ay moromam ba bis bu ñu fiy dellusiwaat def ko comme niñ def Ousmane Tall te am naa yaqin ci ni yàlla dina la ko may incha allahu rabbi. waaw Baye Pape lii moom doy na waar wax dëgg yàlla jëli nañ kaa bu nekk mais bii moom da see raw. parce que bu ñu duggee gis siwo yi gis neefere yi mu tëdd en même temps moom di ko nooy ñun bi ñu duggee rek mënuñu nooy moo tax si jamono bu nekk rek ñu doon lancer appel di leen wax ni nañ bàyyi xel ni ko bàyyi sóoru waxee ay nit lañ yàlla lim bind nit a ci gën nit a ci gën a kawe donte yaa ngi ko tëj fii mais toppatoo ko boo xëyee dugal ci néeg bi boo ko ragalee jëlal bagage yi fa nekk nga génnee bu dee ay bool la nga génnee raxas ñu mën ko si defal yeneen ndab yu set bu dee ay neefere la nga génnee dëkk bi ay góor a ngi fi ñoom buñ ci mënul dara booy jeunes yi mun na ñëw jàpp waa ji sangu ko te yàlla rek tax solalaat ko ay yëre dugalaat ko nii moo tax jamono bu nekk rek ñun ñuy joxe misaal ci ñoom ñii ñoo tax ñu jaay suñuy nelaw ñii ñoo tax ñun mënatuñoo toog mënatuñoo nekk ak suñu njaboot ku nekk yaa ngi toog ak sa njaboot même bu dee une semaine ñun loolu mënuñu ko toogak ak suñu njaboot une semaine mënuñu ko c'est très rare lay am ndax jaamu yàlla yi nii te jaamu yàlla rek nag moo ñu ci yëkkati moo tax ñu leen ciy woo di leen lancer appel di leen wax ni dee leen bàyyi xel seen mbokk yi donte agressif nañ mais bu mu demee nii boo leen ko jéngee sax dee leen ko toppatoo chaque deux jours war nañ ko mën a sang chaque deux jours war nañ mën a defar néegam chaque deux jours war nañ mën a xool lépp luy tilim tilim ci néeg bi ñu dindi ko ndax hygiène ndax ñoom ñi ànd ak seen xel seen néeg yi melul noonu ndax moom bu àndoon ak xelam néegam du mel nii bu xëyee day defar néegam comme ni ñëpp di xëyee di defar seen néeg li mu àndut ak xelam moo tax yi yëpp talu ko waaye ñoom ñi ànd ak seen xel nag ñoom la ko yàlla nattoo kon nit ni tey garabam kon jamono bu nekk rek yàlla mu ngi nattu jaamam waaye nag ci jaam bi lay nattoo jaamam lii ci la ñuy nattoo jamono bu nekk kon il faut ñu bàyyi complexe bi bàyyi séexlu bi ndax jaamu yàlla la te nit ku nekk mun ngaa nekk ci palaasam ndax defuloo yàlla li tax yàlla bàyyi la ngay dund te amoo feebar bi de moom i deful yàlla li tax yàlla teg ko feebar bi kon yàlla mooy nattu jaamam kon ci biir nattu jaamam bi nag ñun nañ jaamu yàlla ci jaam ñi ndax jaamu yàlla ci jaam ñi bul ko seexlu defal te yàlla tax dimbali ko te yàlla tax donte da lay dóor dimbali ko te yàlla tax ndax dóor boobu mu lay dóor mun na la fa xasal bàkkaar yu bari mun na dindi ci yow lu bari kon dee leen bàyyi xel loolu téye sa mbokk takk ko bàyyi ko ci néeg bi donte mun nga ko takk bañ mu génn sax dóor nit wala gaañ nit wala def ay dégâts ay fay bor di la ci fekk jéng nga ko mais toppatoo ko warul am neefere ci biir néeg bi donte teg na siwo dem ci duus bu ko seexlu jëlal siwo bi dem këppal ko ko nettuwaaye toppatoo mu set nga bàyyi ko mu tëdd. waaw comme niñ daan def ci malaati rek ñëw tekki ko toppatoo ko jëlee ko fi yóbbu ko daara ja waaw loolu lañ bëgg ci moom buñ ko yóbboo daara ja toppatoo ko fa ba xelam dellusiwaat mu mën a ñëwaat ci société bi mën a liggéey jëriñ waa këram te yàlla rek tax. thank you saison day metti day metti waaw la moo koy metti dara tangga ko mu ngi ba. tàng bi day metti bu baax waaw day metti bu baax moo la ci ah seen buñ ci jéngoon la loolu la léegi biñ ko dindee nag dara dalu ko dara dalu ko yaa ngi yëg féex nii nii waaw ok léegi dañu bëgg a ànd ak yow incha allah bu ko defee ñu dindil la karaw gi sangal defal la nga sangu ba set changer la yére yi nga mën a féex. amul amul amul ànd ak yow ànd suñu oto. ñu dem am ngay tourné ñëpp dégg nga. problème sax mais bëgg ngaa sangu. sangu a bëgg naa sangu si. bëgg ngaa sangu a ah, waaw. a baax xaaral ma dem sangu si fii fii. waaw xaaral ñun ak yow parce que xam nga. waaw mooy métti Some of sama xel sëfuma ci doj génne Some of biir some of sama njaboot some ma sama famille lu ma gode gode ci mbedd mi laay fanaane ci yàlla bàyyi waa ka sa xel ci yàlla te xam ne ëllëg yamal xiyaam jëf ju baax rek ay tax nga jàll yemu ma sa sa dox ngi ni torox def la ay mbokk ndax xel yàlla tax ñu ma ma seen ma ci mbedd mi di dox yow li lépp ma ko ngi ni lu lu wala yow sama waay you Duck. sai sai Multi-diamond, that's a nafsu, nafsu. of my family. Lomo gode gode, Jimbadi my life hanane. So why? xamante ni ñoom la yaakaar ni bu demee ci ñoom dinañ ko dimbali ci lu mu lekk dañ koy toroxal ba noppi daal di koy toroxal sànni ko ca mbedd ma te ñoom ñun ci ñun lañu bokk nañu xam ne malade mental. yaaram loo waxoon léegi fee ci biir. man nañ pour ñu may ma garab quoi su feebaree. mais nga ne kontaan nga. Ah, kontaan naa. lu tax nga kontaan. ñoo kontaan de. Ah? mana ne dama gis ngay wax kontaan naa di ree. Hmm, kontaan na kontaan na. Hmm, sa xol da sedd. feex naa léegi. ah feex nga. waaw feex nga bu baax. wa waaw. allahu akbar. hmm tax nga feex sango bi. wa grand fàttali ma noo tudd. Momar Cissé Papa. am nga soxna. non non. bëgg nga wa tay lan ngay rëcc ci sa aduna ci lula metti ñak ñàkk ñak ñàkk hmm tay lan nga bëgg ginaaw bi nga xamante ne amoo lan nga bëgg. xaalis la bëgg. yow sa tànk bi dafa mës a nekk handicapé wala mosu ko nekk. non mosu ko nekk. lan moo tax mu nekk handicapé nii. dama mosoon a pikiir fii si loxo. dañ la pikiiroon. Mm. ak jéng bi la. waaw. jéng bi dafa mel ni mës na koo njëkk a ci tànk bi ci kaw waaye mu mel ni chaîne bi tàmbali woon dugg ci yàpp yaram bi ñoom ñu dindi ko jéngaat ko ci suuf loolu la mën a demee tey lan ngay ñaanal ñi nga xamante ni ñoo la jàppale ba defar lu rafet li. penal iblis man may wujju iblis man may borom jakka bi quoi. yaay wujju iblis. mo won ci ja papa. yaay wujju iblis. wa kañ nga ko nek man mo won ci ja papa. ci ja papa. wa yow ya lan moy sa jubluwaay ci aduna julli boore. bëre ak hmm? lan. liggéey moy boore. ak hmm aja sama gaay yi nañu ko jël and ak mom accompagner ko ci auto bi su ko defé ñu yobbu ko fële ci daara ji Mawlana Cheikh Idrissa duggu wër ak wër genn taxé ta yalla rek tax. Ali ci ñun lañu bokk. bul ko jànni bul ko xalaat yow nit nit mooy sa garab xanaa gisoo ci sa wet dafa am feebaru xel yaa ngi romb noor ak na wet ko bàyyi xel xamul lu saf mbaalu lewet yow xiif te du lekk mar te du naan ci mbedd mi lay fanaan yërmande foo ko romb aju mooy feebal te du faju jël ko pax ko toppatoo ko bu feebaree nga faj ko bul ko bayyi ci mbedd mi ci sedd bi muy xiif ak raf ñu koy toroxal di ko sacrifier ngir alalu àdduna lii ñaaw naa lii dafa ñaaw bul ko jànni bul ko xalam fexal utal ko barab xanaa gis lu nu mu mel dafa am feebaru xel bul ko jànni bul ko xalam fexal utal ko barab xanaa gis lu nu mu mel dafa am feebaru xel ki jotee nga gis malaat mental bi sa buntu kër wala sa koñ wala fi nga dëkkee xamal ni xiif moo tax mu ñëw foofu noonu sa buntu kër te xamul nu mu la koy waxee yàlla joxu ko xel moom la mën a waxee ni dafa xiif nga daal di yëkkati li nga xamante ni moo di kaasu ndékki daal di ko koy jox te yàlla rek tax bu dee heure añ noonu bu dee heure reer noonu moom mi nga xam ni suñ borom dafa wàcce ci moom tawatu wéré di xel tanki yi musul mel ni daa toogaay bee yàgg dina bàyyi na bàyyi yërmande Alandim derke dunya kafako Japan sabab tawar da fawab warul durek dunang du am fami fanang gasulen ko chimbadmi gasulen ko si sedbi yagi simbadmi Dika khole vurdu davi Da fırçimom yermandey ku ko yërëm yàlla gërëm dafal ci moom yërmande baay waslu ci àq moom dundam dafa wéet nañ ko jël taf suñu wet toppatoo ko bañ ko betti ndax moom ci ñun la bokk buñ ko bàyyi mu dem nañ ko tee xamul fu mu jëm dafa takkali koog sagoom nañ ko yërëm jàppale ko jëm ci dem ñun lu ñu man na ci ku ne dugal loxoom te yàlla rek a tax surtout ma yow état ti duwaa rek la sa kaa am nga ci part de responsable ndax yéen yéen a ñu jiite li waroon a doon seen yitte jàppale malade mental yi yi abandoné mo moo gën di tasaare seen alal ci xawaare sori askan bi de loin tok sen bon coin di capo akaré bay ñi ci torox tangé di capo akaré bay ñi ci dumuranké di capo akaré bay ñi ci lorangé dañoo bi ak lu ñu witti du benn góor kàttan lay doon baax lool ci góor gu tële ba góor gu gaaw a daanu rax si dolli tey dëgëral awra am ka lu yomb la contacté ñu gaaw si numéro téléphone bii di 77 734 26 67